tabarakallahu mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam tabarakallahu seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndao mu dellu si rek ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission al hidayatu min al kitaabi wa sunna ñu ànd ci tabarakallahu ak seen mbokk Samba Sy mu mel ni ñu ngi woon ci saxaabi bu mag di taabici ñu ngi woon ci taabici bu mag parce que saxaaba mooy ki nga xam ne gëm na yàlla ba noppi dund ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam taabici mooy koo xam ne dafa ñëw gannaaw bi yonent bi noppaloo dund ak ñi nga xamante ni dundoon nañu ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ak moom jamono alxasanul basri ñu gën ko miin ci wàllu dàkkantal ci aba saïd wala abu saïd wala abi saïd mu ngi dépendre ci niñ koy taba ni muy duggee ci tabarakallahu jumla bi su dee mubtada maanaam buñ ko rafaayee nga ne abu buñ ko nasabee nga ne aba bu ñu ko jaree nga ne abi loolu tax ngay dégg abu bakrin aba bakrin abi bakrin abu bakrin buñ ko rafaa aba bakrin buñ ko nasabee abi bakrin buñ ko jaree moom nag ñu ko daan dàkkantale ci aba saïd wala abu saïd wala abi saïd ñu waxoon leen ne tabi'i bu mag la te itam royukaay la di montagne bu mag tabarakallahu ci sharia ak tasawuf tabarakallahu e mu mel ni tawxiit bi nga xam ne moom la mën a jàng ci dundam te moo di wetal yàlla gis nañ ne daf ko fees la dell te tawxid moom la yonent bi sallallahu alayhi jàngale fukki at ak ñett ci makka ngir ne mooy defar xol mooy tax nga xam yàlla mooy tax itam sa julli mën a woo wér sa koor mën a wér sa azaka mën a wér tawxid boobu mu amoon ci la gëme ne kenn rek moo ko mën a lor muy yàlla kenn rek ko mën a jariñ mu di yàlla mu nekk koo xam ne itam laa yaxaafu fillaahi lawmata laa'im maanaa bu dëgg jotee ragal nit ki du tax mu bañ ko wax ndax moom ragalul mbindeef mu taxaw ci kaw suuf yàlla rek la ragal dana la ko wax nag ci yar ak teggin tabaarakallaahu dana la ko wax itam bil xikmati wal mawidati alxasana mu gis ne kii di Xajjaaj ibnu Yuusuf zaalim la bi maanaa tooñkat la criminel la reykatu nit la te ñu baax ñi rekk lay rey te itam nguur gi tegu ci loxoom tooñ rekk la ciy def mu bokk ci ñi ko njëkk a ci façon bu noble bu am yar te am teggin ba xajaaj ibnu yuusuf amoon lu mu namoon ci moom pour rey ko mu ñëw nag ci xadraam mu jàngoon fa ñaan gi yaa malaadi inda kurbati wa mu'nisi fi waxshati ijacal niqmatahu alayya bardan wa salaaman kama jacalta annaara bardan wa salaaman ala ibrahim gis nga ñaan gi jar na mokkal di ko ñaan boo taxawee ci kanamu agresseur wala nga taxaw ci barab bo xamanteni ragal nga ne man neen la fa boom wala dee ngi jàkkaarloog yow wala ay musiba ñu ngi dëtmal jëm si ci yow ndax ñoom ñaare dafa am lu yàlla di wàccee di ko jaarale ci nit ñu baax ñi waaw ñaan gi yomb na yaa malaadi inda kurbati ya munisi fi waxshati ijaal niqmatahu alayya bardan wa salaaman كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم yow sama wéeruwaay ci bu ma jàqee kon yàlla ngay waxal yow yàlla mi nga xam ne yaay sama wéeruwaay ci bu ma yàq bu ma jàqee yaa yow sama wéeru waaye inda kurbati fas sama njaqare yaa munisi yow sama wéttal fii waxshati ci sama wéetaay ijaal yàlla nga def niqmatahu musibam bi mbugalam mi yàlla nga ko def bardan mu di jàmm ju sedd guy wa salaaman ak mucc gu sedd guy alayya ci man kama jaxalta naara comme nanga nga defee woon safara wa bardan mu di jàmm jàmmi sedd wa salaaman akuk mucc ala dégg nga ibrahima ci sa jàmm boobu ñuy wax ibrahim bañ ko den bañ ko doon fexeel te wéetal rekk taxoon moo tax ñu ne ma fihi insanun aqwa min muwahid amul ku gën jàmbaare ci kaw suuf نينا كو خامني نينا موحد لا مانا ويتال كاتو يالا لا كيما مانام كيغا خامني مبن ني واخي موحد موي كو خامني گمول بن بوفوار بودول بوفوارو يالا گمول بن ترانغا بودول ترانغا يالا لوكو مانا وان جيسوكو ليمو جيس دال موي يالا شي لوخوم لا ليپ نيك موتاخ بو تولو فوفو دون دامو dara lo def tabaarakallaahu doni itam nangam jombunama ndax da ngay xamne la hawla wala quwwata illa billah motax tax ñu ne maa fiihi insaanun aqwa min muwahhid ma fihi insan aaz min muwahhid ما فيه إنسان ajra من موحد أمول ku gën a dëgër wéetalkatu yàlla amul ku gëna tedd ku gëna noble noble katu yàlla amul ku gëna ñeme ñeme katu yàlla boo dee wut jàmbaar daal ci gi nee na seetal koo xam ne tawxid mu ci xolam kooku mooy jàmbaar ndax kooku laa yara ma allahi ahadan kooku digganteem ak yàlla tegu fa kenn moo taxoon ñu laaj xasanul basri ne ko bi ma nilta hada al te defe naa xaajib ba moo ko ko laajoon maqaama bi noo ko amee mu ne bis na i an dunya naas dama soxlawul li ci loxoy nit ñi wa xaajatihim ila ilmi ak xam gi ñu xam ne am naa xam-xam ñu daw wut si ma looloo ma may force bi ma am li ma may nag soxlawuma li ci seen alal ndax xam naa ne yàlla koy joxe ma fa féetewoo kii leen koy jox bu ma ko soxlaa mu jox ma ko tabaarakallaahu moo tax buur yi daan nañ ko soxla di soxla xalaatam te ku mu ciy waxal du xool sa nguur du xool sa pouvoir du xool sa dara bu la waree wax dëgg dana la ko wax te yàlla tax ci yar ak teggin tabaarakallaahu moo xew-xew bu rëy doxoon na digganteem ak wali basra xam nga moom basri la ndax moom sax foofu sax leen koy dàkkantalee ñuy wax alxasan al basri waaw ñu koy dàkkantalee alxasan al basri waali al basra dafa amoon i problème li indi ay problème am moo di dafa am buur bu maandu bu ñuy wax Omar ibn Abdul Aziz maandoom àggoon na ci wax dëgg yàlla fekkewul jamono yonent bi fekkewul sax jamonoy xulafaawul arbaa bi maana dundul ak Seydina Aboubacar dundul ak Seydina Omar ndax Seydina Omar mooy maamam dundul ak Seydina Ali dundul ak Seydina Ousmane ci ginnaaw la ñëw waaye bi nga xamante ne xulafaaw yi jóge nañu fi ñi nga xam ne ñoo wax ne maanaam dañu wax ne ñoo ñoo doon yonent bi muy ñeenti saxaaba yu baax yooyu le ñu gis ne ginnaaw si gi nguuru lislaam bi dafa ñëw tegu ci loxo benn famille mu di umawi yoon yi mu jaarale ko moom suñ borom ci muawiyatu bnu abi sufyaan jaar ci doomam ju ñuy wax yazid nguur googu di continuer ba omar ibnul abdul aziz mi bokk ci famille boobu yàlla dogal mu nekk buur ndax boo gisee ñuy wax euh, xalifa di wax amir parce que yonent moo waxoon ne xilaafa gannaawam fanweeri at lay am ci kaw suuf mu jeex ñu gis ne bi mu génnee àdduna ak bi ñuy boom si Ali ci fanweeri at la toll ñu nekkoon kon ñii ñooy xulafaul arbaa ñooy xulafa ar rachidun moo tax ñi ñëw seen gannaaw kenn du leen wooyee xalifa Seydina Muawiya ku ne xam na ne saxaabi yi la woon bokkoon na ci ñi nga xam ne daan nañu bind wax yu nekk xale yi waroon yonent bi bu alxuraan dee wàcc ñu koy bind ci la bokkoon moom Seydina Muawiya waaye ànd ak loolu lépp kenn boolewu ko ci xulafaa yee moo tax duñ ko wax alxalifa mook amir la rek mais nekkuloon xalifa Omar ibnu Abdou Aziz mii nag bi mu ñëwee mbaaxam maandoom ragal yàllaam taxoon na ñu ne mooy juróomeelu eh, xalifa ci xulafa u rachidun yooyu moo leen juróomeel tellement que ni mu baaxee ni mu maandoo xilaafaam ñaari at la waaye ñaari at yi yàlla sotti na àdduna ay xéewal yoo xam ne ci nguuram demoon na ba dootoo gisati yalwaankat bu taxaw ci mbedd du silmaxa du kenn ku am laago koo xam ne yaa ngi ci mbedd mi di tàllal loxo ndax ñoom ñëpp daf leen wutaloon salaire gérer alal ji su su alalu baytul teg ko fi mu ko war a teg di ko doxal doxal bu sell bu rafet bu jaar yoon tabaarakallaahu moo tax ci jamonoom ñu daan ko wax ne ko rab yi sax fàddeetuñu ndax rus la ni nga maandoo céeli sax fëkkatul cuuj ndax rus la ci ni nga maandoo suñu boroom subhaanahu wa taala barkeel asamaan muy taw suuf di sax tabarakallahu nawet yi nangu ndax buur bu maandoo day indi wërsëg ci réew buur bu maanoo day indi jàmm ci réew moom Omar ibn Abdul Aziz bi nga xamee ne yàlla dogal na mu nekk xalifa moom ci boppam moo njëkk a damm ñaw kay tabarakallahu xajaaj ibnu yuusuf ndax xajaaj bokkul ci seen famille mais dafa ñëw taqoog marwaani yoon yi fexe ba am pouvoir ci ñoom ñu def ko xaayit tabarakallahu képp koo xam ne jubóodiku nga ak euh, marwaani yoon yi ci bani umaya xajaaj ibnu yusuf di du hésité pour ray la tour sa deret tooñ googu yëpp nag omar nu abdul aziz bi muy nekk xale te jotagul ci nguur gi daf ko daan mettitlu di ko naqarlu pouvoir bi nga xam ne jox neen ko jàmbur bi nga xam ne bokkul ci ñoom wante bëgg place rek tax na njaajaan njaay gu ne mu def ko pour neexale ko famille tabaarakallaahu umawiya bi ngir gën a mën a placé wu loolu taxoon na moom Omar ibnu Abdul Aziz bi mu ñëwee la mu njëkk def mooy setal nguuram ci mbooleem dégg nga euh, oppoor yooyu nga xamante ni dara taxu leen a jóg lu dul seeni intérêt ak seen bakkan li ñuy wax naan buur aayul dakk ya aay moom ci dakk yi gënoon a aay la bokk waaw moom euh, Omar ibnu Abdul Aziz xilaafaam tabaarakallaahu ñëpp ci yëg seen bopp mu génn àdduna bi mu génnee àdduna nag léegi يزيد بن عبد الملك دادي تبارك الله دون بلاسم واو دادي دون بلاسم انتقل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى جوار ربه وآلت الخلافة إلى يزيد بن عبد الملك لجي bi nga xamante ni génn na àdduna yazid ibnu abdil malik daal di donn tabarakallahu omar ibnu abdul aziz jëmm ju baax ju sell jooju nga xam ne wax nen ne mbaaxaayam yell na ñu yéegal ko ci seydna ali seydna ousmaan seydna omar ibnu alxataab ak seydna abi bakr donte yonent bi wax na alxilaafatu baadi salaasuna sana moo tax ñu ne mooy xaamisu xulafa irrachidin génn na àdduna yazid na abdul malik donn na ko mais est-ce que yazid ubnu abdul malik dafay mel ni buur yi ko jiitu woon ci umawiyin yi ku ci demee ni ki yazid ubnu muawiya ci tuur deret ak yàq wala dafa war a roy ki nga xam ne ci moom la jëlee nguur gi ci maandu ak defar ñu ne waaye bi mu ñëwee jaarul fii Omar ibn Abdul Aziz jaar lal asaf tey su fekkonte ne wax dëgg yàlla yàlla bëgg na ko kon dana roy ku baax kii nga xam ne jàngi na ci nguuram maandu jàng na ci nguuram yërmande jàng na ci nguuram njub ak ragal yàlla jàng na ci nguuram ci ne nguur yàlla koy able rek tabaarakallaahu waaye yooyu yëpp gisu ko ndax dooley nguur bëri na koo xam ne mu ngay campagne di wax lu ne bu ma faloo danaa def nangam bu ma faloo danaa def nangam waaye daa jotagul ci nguur gi rek bu ciy jot rek jikkoom di feeñ ndeke nguur tabaraka tabarakallah du mbiru politique mbiru jikko la li gars di campagne diko wax yeb existé wul buñu falo rek seen jikoy feñ tabaraka moo motax mom Yazid ibn abd al Malik bi mu falo ولا العراق عمر بن الغبيرة الفذاذي ثم زاده بسطة في السلطان فadafa ilayhi xuraasaan ñu ne bi nga xamante ni falu na moom Yazid nekk amiral muminin Irak fokk mu am gouverneur bu ko fa toogal mu daal di nommé nag ku ñuy wax Umar ibnul Xubayra Alfazazi moom moo ko fa toogal mu fal ko fa gouverneur Eh, mu daal di gën a yaatal nag nguuram ndax daf ko jox ñaari gox daf ko jox Irak ba pare jox ko Iran ndax Iran leen daan wax Xuraasaan te ku ne xam nga ne Irak ci suñu jamono bi ñu toll réew la bu am président Iran itam ci suñu jamono bi ñu toll réew la mu am président kon su fekkente ne jox nañ ko Irak jox ko Iran kon moom buuram boobu lan la yilif kon booba lislaam li mu yilif ci àdduna bi bari na moo tax moom gouverneur boobu di Omar ibnul Xubayra ñaari réew la yoroon ci jamono boobu وهي وسار يزيد في الناس غير سيرة خلفاء السابق أو آه، آه، خلفه السابق آه، ما كان على سيرة عمر بن عبد العزيز ñu يزيد مي بمو نيوي mu ñëwee royul jëmm ju baax ji nga xam ne moom la remplacé ndax li lu koy lii firndeel loolu mooy ñaari gox yi dañu xawoon a naqare yilif muy Irak ak Iran bi maanaa Irak ak Xurasaan léegi moom Yazid kii nga xam ne fal na ko fa di Omar ibnu Xubayra wax dëgg yàlla moom itam borom jikko ju rafet la te kuy xool diineem la ci lépp loo xam ne daf ko bëgg di doxal ci nguuram ci pal gi ko yàlla jox mu doonoon ko ragal yàlla mu gis ne bëri na ay lettres yuy jógee ci buur bi di ñëw ci moom di ko sant ay mbir yoo xam ne mbir yooyu suko topé mën na yàq adunaam mën na yàq alakhiram ndax bu yagge dana melni ni xajaaj ibn yusuf ci tour deret ak togn te lolu bëggu ko moo ñu ne fa kana yursilu ila umar ibn ghubayra bil gubayra til wal kitab wa yamuruhu bi infaadi ma fiiha walaw kaana mujaafiyan lil xaq daan na ko digal ci lettre yooyu ay mbir yoo xam ne daf koy wax na ko nanga ko exécuter def ko donte sax gis nga ne li ma la sant du dëgg mais def ko def ko gis nga nguur dafa gaaw a beewloo moo tax yazid yursilu kutuban wa awamira wa tawjihatin liwaalihi ala basra wa xurasaan bu ñu waxee basra nag moom moo di iraq ndax bu njëkk ba boo nee basra rek mooy iraq gépp kon daan na yónnee ay lettre ci gouverneur boobu nga xam ne moo di Omar ibnu Xubayra di ko ca digal nag ay mbir di ko ca jox ay orientation waaye hadihi al awamir mujaafiyatun lil xaq li ëpp ci lim ko doon diggal ak tooñ la goo xam ne wax dëgg yàlla dafa wuute ak dëgg wala dafay beccangal dëgg waaye euh, gouverneur bii nga xam ne moom lanu fal yàlla dimbali na ko ñaari nit ñu baax di boroomi xam-xam nekk ci wetam kenn ki mu ngi tudd Amir ibnu Shurahbil عامر بن شرحبيل نيغنكو مين تي الشعبي مودي بروم خام خام بو ماك دون مونتان تي جامونوم نيب خامكو اك بروم خام خام بو باخ بو راغال يالا بو ني ابا سعيد الحسن البصري مو ام شانسو بينيفيسي و تي نياري بروم خام خام يو غير ديسوك نيوم تي لتر ييغا خامتيني نيونكو كوي يوني te dara àndu ci ak deug lu ne lépp togn la bi maana kon Yezid ci bopam dafa melone ni dictateur la won daf daan def rek luko neex sans mu wante inna amir al muminin Yazid ibn Abdil Malik قد استخلفه الله على عباده لولا لين واخ مو لولا لين بنيو نيو مو نيلين دما بغا ديسو يين سي مير مو خامني جاخال نما لول ناخ منوتوما نلو ني نيكو لان لا من ان امير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد استخلفه الله على عباده واوجب طاعته على الناس وقد ولاني ما ترون من أمر العراق ثم زادني فولاني فارس وهو يرسل إلي أحيانا كتبا يأمرني فيها آه، مني كيدي امير المؤمنين وحنا muminin wax خلفاوي كفلورك أمير لن لي ووي يعني أمير المؤمنين مني أمير المؤمنين بيني وح يزيد بن عبد الملك يلا ووتل جناو أي بايم أكي مامم تاي مني خليفة تي جامم يموم يلا مو waral mom yalla ci donte togn kat la nanu ko top parce que su dee dictateur sax di tooñkat topp ko moo gën weddi ko ndax weddi bi lim mën a jur ci fitna boo xoolee tey fu demee ni kii eh, Syrie tey la fa xew ku ne xam na ne démocratie amu fa woon benn famille fa nekk rek di falu ndax Assad mi fa toog bàyyam la fa remplacé mais tey bàyyi woon ko fa moo doon seen jàmm ñaata bakkana a tuuru hmm? ñaata tabaarakallaahu famille lañu ñu tey yii famille jeex na nu amatuñu ñii génn nañu ñu ngi ci réewu tubaab yi nañu mën mënoon a doxale seen diine mënatuñu ko tabaarakallaahu amatuñu jàkk yu sell yu ñu yu ñu jullee lekkatuñu lekk gu sell ndax ku ne xam ne ne àdduna bi ni muy doxee booy dee dund ci réewu tubaab yi daanaka sa lislaam moom mooy loolu di ko xale yi di waxe tabaarakallaahu alors kon ñu bàyyi woon fa asad moo doon tane ñu ne tey dafay jóge ci force moo tax buur même bu dee tooñ lislaam daf la wax ne feeg yeggul ci li ñuy tuddee kufrun ba waax mooy dem ba ne kenn dootu fi doxalati lislaam def jullit ñi noon bëgg a rey lislaam complètement mën nañ ko bàyyi ca tooñam googu te ñun ñu continuer doxal suñu diini dégg-dégg boobu daal Cheikh Sidi Hadji Malick si amoon ci bi fi tubaab yi nekkee tabaarakallaahu moo tax opposé wul woon tubaab yi benn opposé bi lu tax ndax doonte ñëw nanu bàyyi leen ak seen diine ñu koy doxal bàyyi jàkka yi di nodd bàyyi nit ñi di julli pour moom amul pour defak tubaab bi dara waaye bu taxawoon nag ne kenn du fi julle kenn du fi doxal diine su boobaa nag tabaarakallaahu lay jaadu mooy jàmmaarloog moom def jihaad waaye feeg mu ngi bàyyi nag ñuy doxal suñu diine bu fëkkee suñu alal lekk ñu xam ne nattu la bu ñu yàlla teg ndax yàlla moom ñaare léeg mu falal la buur boo xamante ni la tax mu fal ko mooy nattu la yow ci tooñ gi nga koy tooñ moo tax bu ñu bëggee jubook yàlla ci suñuy buur la ñuy def moo di tabaarakallaahu jéem a jubóog yàlla ngir yàlla dindi fa buur boobu ndax buur yu ci bari nattu leen ci seeni peuple te li koy indi mooy bàkkaari peuple bi muy indi yàlla di leen nattoo buur yu leen dul yërëm kon tabaarakallaahu ñu bàyyi leen ngeen déglu nodd bi loolu la leen wax na leen amiral muminin daal yazid ibnu abdul malik yàlla def na ko mu di xalifa ci jullit ñi te mu waral nag ci ñun ñu topp ko mu def ma nag ma di gouverneur ci Irak mu faf ma doli sax Iran motax tax mu ne summa zaadani fa wallani faris te buñ ne faris rek moy Iran mu ne wax yursilu ilayya ahyanan kutuban leeg mu yónnee ma ay lettre yo xamne daf may digal te lam ma cey lam ma fay lam ma cey digal maa la atma innu ila adalatihi sama xel daal dalul ci dara ca la ma ci gis ndax ak maandu nekku ca tooñ rekk a ca nekk mu ne fa hal tajidaani lii fi mutaabaati iya ndax jaadu na ma topp ko ci loolu maa ngi leen di laaj nag ci li ngeen jàng ak li ngeen xam ci seen digganteek seen boroom ci li yàlla digle ci téereem bi maa ngi laaj ba xam ndax bu fekkee li ma sant def naa ko du ma indil dara ci ay problème ci sama walu diine fa ash-sha'bi jawaban fihi mulatafa lil khalifa wa lil wali ki nga xamne modi sha'bi di amir ibn sharhbil mom mo ñëk tontu hasan al basri ci bi nga xamante gouverneur laaj na len ndigal yi nga xamne mu ngi koy jotté dara jaaru ci yoon te ndigal yëpp di tooñ ak i jalgati Shaabi yi daal di tontu tontu boo xamante ni daanaka maslaa la rek xam nga dafa am lu ñuy tuddee almudaaraat wal mudaahana almudaahana boo ko dee def mooy jaay sa diine ngir ragal walla xemmem ragal nga buur bi tax nga teg fële masala bi tabarakallah wala xemmeem nga mu def la dara tax nga teg fële masala bi waaw moom la suñ borom wax ne waddu law tuddihinu fa yuddihinoon daan nañ ko def yonent bi sallallahu alayhi wa gis ngeen sax waa makka cheikh sidi haaji malik si wax na ko jaau ila ammihi jiman li yuxzilahu man yabgi bayda anuqin aaqilan yulami ñëw nañ ci yonent bi ne ko dañu bëgg a def ak yow mu daaxana te moo di su fekkee da nga bëgg nekk buuru màkka ñu fal la ko te nga bàyyi lislaam bi ndax arrangé wuñu yaa ngi yàqal suñu xërëm yi kenn gëmatu su fekkente ni itam da nga bëgg ëpp alal ci màkka mën nañ la dajaleel alal ba nga ëpp ñu alal ñun ñëpp te nga bàyyi sa lislaam bi parce que suñu xërëm yi kenn gëmatu ko bu fekkente ne itam danga fi nopp jigéen joo mënta takk daañu ko forcer mu sëy ak yow su ko defee nga mën ñu jàmmal ci sa woote bi ngay tuddee lislaam loolu sax mooy doxalinu franc yi ndax franc bi bu ñëwee pour bëgg nga génn ci diine dafay def ak yow mu daaxana gaaral la alal ngir nga génn ci sa diine am na ñoo xamante ne nag mu daaxana boobu complexe buur wala borom alal dana tax ñu def ko jaay seeni masala diine jënde ko benn un million bu ñu leen di jox wala benn deux millions wala boog benn trente millions bu ñu leen di jox léeg sax mu dal ñu ñun waxtaankat yi léeg nga gis yenn tabaarakallaahu eh, mbooloo yoo xam ne xamuloo lu ñuy dox walla rek jox la xaalis ngay wër di conférence rek di dagganal wala ngay xaraamal yooyu itam yu jar a bàyyi xel la te nag boroom xam-xam yi duñu ay maasumin maasumin mooy ñoo xam ne yàlla daf leen ñoŋal ci bakkaar comme ni mu amee ci yonent yi yonent yi ay maasumun lañu gis naa fi ñoo xam ne sax seen sëriñ ñu ngi koy jéem a tëkkale wala sax ñuy wax ne seen sëriñ moo gën yonent yi gis naa ko wax ci benn télévision ne seen sëriñ moom moo gën أولو العزم من الرسل تبارك الله كون دما فوغني لي يونتي صلى الله عليه وسلم واخون ني لي اوب لي دوغال نيت ني الك سفرا سين لامين لا بكارو لامين دا فا غاو تا دا فا يومب تيتم دا فا ري انا لو غنا ري واخ بوب بوكو نا بونكي غم يي غي غم يونتي waaw ndax est-ce que bokk na ci ponki ngëm yi nga gëm walu yi ponki ngëm yi gëm alaaji Malick bokku ci ponki ngëm yi gëm sëñ Touba bokku ci ponki ngëm yi gëm Cheikh Saadu Abihi bokk ci ponki ngëm yi mooy nga gëm Moussa gëm Seydina Isa gëm Seydina Moussa gëm Seydina Ibrahim gëm Seydina Nuux cent vingt-quatre mille prophètes yëpp amoo droit weddi ci kenn waaw ñooñu danga nga leen tëkkale tabaarakallaahu Cheikhu Tidiane yi biñ ne biñ ko waxee ne ko e, ndax saxaaba yi ak Tidiane yi ñan ñu ëpp ngëneel mu ne man mii seen sëriñ sama ni ma mel ñoom dama mel ni sànq bii dox ak piccim prontaan biy naaw bi naa tan miy naaw ak piccim prontaan bii dox kan moo gën a gaaw picc may naaw moo gën a gaaw cheikh nee na may sànq lañ ba kon ñële ñoo ma ëpp nga ngeneel moo tax saxaaba yi duñ leen tëkkale ak suñu bopp rawatina yonent yi ndax yàlla ñi mu am yonent yee ci gën yonent yi ulul azm ñoo ci gën ulul azm sayidna muhammad yi gën tabaarakallaahu kon mu ngi noonu moo tax fa ajaaba shaabi jawaaban fiihi mulaatafa شعبي أمنا كومبلكسو والي بيدي تبارك الله إيه عمر بن غبيرة تونتو بينك خوي الدويوار نخ خمم نبور بي أم فم كوتك موتاخ مو خوا تونتو تونتو بو عندك سانتيما وخوكو دق دق لي خيو تيتم باينا خيل ديكتاتور بلينغا خمنا موي سانغام ndax mën na dégg kàddu safaan mu yebal ay soldaar léegi ñu jël ko rey ko loolu taxoon na waxul lim war a wax foofa Seydina Xasanin al Basri mu ngi ne tekk waxul dara فالتفت عمر بن غبيرة إلى حسن وقال وما تقول أنت يا أبا سعيد فوفنك لغوفرنر جيستو gis xasanul basri ne tekk toog waxul dara mu ne ko yaa aba saïd ma taqulu yow nag lan mooy sa kàddu looy wax gis nga boroom xam-xam tabarakallahu nitu yàlla balaa nga xam degré ngëmam ak tawxiidam rek mu dajeeg ñu mel ni buur yi nga xamante ni ay dictateur lañu tabarakallah mu mel ni rek dañ ko piquer fa qaal mu ne ko yabna Gubayra mu ne ko yow gouverneur bi ñuy tuddee Omar ibnu Gubayra mu ne ko sa wax bi lii nga ñu wax ni dañ ko waroon a bind maanaam dañ ko waroon a bind ci encre or denc ko di ko jàngal nit ñi ndax mënoon nga ànd ak buur bi ci def caay-caay nu mu la neexee sa nguur di gën a dëgër ndax lim la jox dafa rëy daf la jox Irak dolli la Iran di la digal ay mbir nga xool sa diine te xooluloo sa place nga xool yàlla te xooluloo buur bi la fal mu ne ko kon nag dana ma neex lool lii nga ma laaj ma wax la ci luy gën a dëgëral sa pas-pas luy gën a dëgëral sa diine luy gën a dëgëral itam sa aqida sa ngëm yàlla yàlla ite buur yëpp amoon ku mel ni alxasan al basri mu ne ko yëpp na xubayra خف الله في يزيد wala taxaf yazidan fillah mu ne ko ragalal yàlla ci ni ngay jëflanteeg yazid waaye bul ragal yazid ci ni ngay jëflanteeg yàlla so xasee jóg jëm ci yàlla bul faale bul yëg ne sax yazid existé na mukk jàppal ne nit rek la mënu laa jariñ mënu laa lor waaye saa boo jógee jëm ci lu la yësit digal na ca seet la ca neex yàlla balaa nga caa seet la ca neex yësit yàlla nañu yàlla fayal suñu góor gu baax ga maam El Hadj Abdou loolu la waxoon waa assemblée ne leen loi bu ñuy wootee nangeen ko càmbar seet la ca neex yàlla lu jiitu ngeen di seet la ca neex ab Abdou Diouf dafa mel ni lu bokk niroo buñ la dee jàngal xasanul basri jëlal alaaji abdu rek nga teg ci wetam allah jëlal alaaji abdu rek teg ci wetam macha allah ñeme dëgg te nekk ca jàmbaar macha allah mu ne ko xafi allah fi yazid wala taxaf yazidan fi llah mu ne ko waalam an allah jalla wa jalla wa ala yamnauka min yazid wa anna yazid la yamnauka min allah mu ne ko waalam na nga xam ne anna allaha ni ki yàlla jalla wa ala yamnauka moo la mën a musal min yazidin ci yazid waaye wa anna yazida yazid mii laa yamnauka mënu la musal min allahi ci yàlla gis nga yazid mii di sa patron fal la saa bu naree lu ñaaw ci yow saa bu la naree folli wala mu nar leneen ci yow yàlla rek moo mën a tee loxoom ba du la mënal dara mu ne ko wante nag yàlla moom saa bu nammee dara ci yow yésit mënu ca dara mu ne ko kon na nga bàyyi xel loolu waaw mu ne ko yëpp na xubayra mu ne ko labbayk mu ne ko yàggatul dara dana am benn malaaka mu ñuy tuddee azrail muy malakul mawt mu ne ko malakun xaliid mu ne ko malaaka mu ñàng la te raglu shadid malaka mu am kattan la mu nërmeel buur yi wàcce leen ci seen pale jël seen ruux ñu dugal leen ci pax te garde yi gisuñu leen xamuñu fu ñu jaar nee na malaaka moomu laa yaasi llaha ma amara du mooy yàlla mukki li ko yàlla digal malaaka moomu dana ñëw bis fa yuziluka an saririk moo lay wacce ci sa kaw lal ndax moy jël sa ruh wa yunqiluka moo lay toxal min saati qasrik ci sa pale bu yaatu bi nga xamne sal yi yaatu na néeg yi yaatu na alal ji yaatu na kat yi ci bir xadam yi yaatu nanu bari nanu surga yi bari nanu macha allahu malaaka moomu moo lay wacce ci salal boy salal bu yaatu bu neex bi mo la fi wàcce moo lay toxal jële la ci sa pale bii fu mu la jëmee ila diqi qabrik moo lay yóbbu ci sa xat-xatu bàmmeel bàmmeel boobu nag la yàlla wax ni képp kenn ci yéen jaam yi daa ngeen ma dikkee kenn par kenn loolu buñ ko xaar yowmal xiyaam ñu la yàlla dafay recevoir nit ñi kenn par kenn déedéet suñu boroom àdduna bi li muy bari bari da ngay dégg rek diw faatu na diw moomu dañ koy jël dugal ko moom dong ca bàmmeel ba pourtant ñi koy gunge doom ju mu nga ca est ce que doom ja day dugal ak moom ca biir bàmmeel ba déedéet jarbaatam a ca ndax day dugal moom ca biir bàmmeel ba déedéet koo doon forcé mu ne la mukk du ma dugg jabar jàng ca kër ga kay ñu koy jaal mu lal tabaarakallaahu layu bi ñu ko cay sànni xaalis waaye nanguwul mukk ne damay dem toppi sama jëkkër ca biir bàmmeel ba moom la yàlla wax ne daa ngeen ma dikkee kenn par kenn ndax booy ñëw kenn du la nangoo gunge loo am am njëriñ ci nit ñi ak loo leen mën a defal boo dee dañ lay dugal yow dong ci bàmmeel ba rek waaye ñoom ñëppay wàññeeku ñibbi mu ne ko kon nag na nga fàttaliku bis boobu ci lii nga xamante ni sa kilifa mu ngi la koy digal te ay tooñi kese la tabaarakallaahu mbokk yi dafa mel ni dañu xaw a tardé tuuti moo tax euh, ñun ak yéen ci Seydina Alxasan al Basri ci digganteem ak wali Basra ak ki ko yilif di Yazid ibnu Abdil Malik tabarakallahu ak ñaari kilifa yi nga xam ne woo na leen moom gouverneur bi ñu di ay borom xam-xam te ñu war koo xelal war ko ubbee ci wàllu diine kenn ka moom wax na la mu wax ba pare xasanul basri nag mooy waxte te jeexalagul tabarakallahu ñu tégani fofu suñu baram rek inshallah ba talata ji di ñëw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu haq ñëpp seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci seen émission al al hidayatu min al kitab wa sunna tabarakallahu ci seen rajo Safina FM wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh